asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi di leen nuyuwaat bu baax di leen béggee yow ñuy suivre sur wasaare lamb wasaare TV kon niñ ko doon defee rek lañ koy defee tey nag ah, ñu ñëw fii ci Wakam ñu seet si champion muy préparé li nga xamante ne moom mooy combat le 13 avril Prince PABC Events euh, organiser loolu moo jëbu yoof ñëpp xam nañ nag dafa jóge ci li nga xamante ni moom mooy victoire ci digganteem ak Kewel moom lañ fas yéene waxtaan ak moom ci lamb ak li nga xamante ni moom la dëgmal dañ koy bàyyi mu nuyoo après ñu eggali waxtaan bi monsieur maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay bisimilah subhanallah walhamdulilah wala ilaha illallah wallahu akbar maa ngi lay fay di di nuyu sa caméraman bi ak waa wasaare yëpp. di nuyu sama coach bi ngeen ma fekkal muy Kanté Bodian ak waa salle bi fi ma fekk di waaja di nuyu suma ay mbokk waa Ngor waa Wakaam waa ki nga xam ne ñoom laa am bu ma amee ndam yoo fa am ndam bu ma ñàkkee ndam yoo fa ñàkk ndam di nuyu waa tundu jandeer bi yëpp waa Morolan kër Ndiob waa kër Baaba waa Njar Mburin Njar Tijaan axlul kunti yi fépp fu ñu nekk maa leen di nuyu li ko daggee ndànk guy yett sanc bu na ndeer ba jàll njaasaan di ñaanal sama sëriñ Cheikh Albekaay wulu Cheikh Albekaay wulu Cheikh Abdou Mouhamad Kunta yàlla yàggal ko fi sama sëriñ Cheikh Mahamad Rafael wulu Cheikh Abdourahmane bu wulu Cheikh bu Mouhamad Kunte ak alaaji Sidi Moxtaar wulu Baye bu ak mboolem Kunte yi maa ngi di ziar bu baax a baax Modja ñu gis ni yaa ngi transpiré yaa ngi ñaq macha allah jëm ci li nga xamante ni moom moo lay 13 avril mais ñaq bi état de forme la wala nu mu demee noonu. waaw ah, ñaq bi échauffement la rek parce que ku yëngu ñaq mooy loolu kese euh, la mu ja dañuy ñëw li nga xamante ni moom dañuy annière tuuti avant ñuy ñëw ci combat bi ndax pour une première fois wasaare lamb ñu seet si la euh, tey rek euh, tey xam na kenn du fa nekk naan kan mooy mujja loolu yëpp parce que sénégalais yi wala ñi lay seetaan sur wasaare lamb xam nañ la mais tey boo ñu doon résumé rek tey nga ñëwaat ci li nga xam te moom mooy ci ginnaaw wax ñu sa parcours. waaw moo ja benn jeune la bu juddoo yoof màgge yoof di dund làmb ma yàlla dimbali ko si mu bëre feex ay nit am si ay ndam am si ay defet di ñaan yàlla defet yam am fa victoire yi continuer mu am lu ko làmb jaral xam ko moo tax mu jaral ko moment bi mu isolé wu ñëw wakaam di waajal boppam di jublu si komba ak caat bu école di Boy Bambara di si waajal lépp ndëkk lépp loo xamante ne combat bi jaral nañu ko rek duñu ko wax mais dinañ ko si jëf incha allahu rabi mujj wax nga ko léegi li nga xamante ni résumé nga ñu mais tey suñu ñëwee say combat mujj ñëpp xam nañ ni lutte avec frappe peut-être si lañ la ràññee mais tey bu ñu nee waa Yoff kon li ngay wax rek li ngay tudd chaque jour lébu gi ñoom ñëpp am na lu ñu jéem a découvrir ci li nga xamante ne moom mooy mujj mujj mën ngaa ñëwaat ci li nga xamante ne moom mooy say combat avant nga dugg ci lutte avec frappe. samay combat mbapat quoi waaw sama combat mbapat moom fala la ma waayof toppee parce que fa laa jànge bëre seen kanam wan leen lu tax ñu topp ma Ngor Wakaam Yoff Medina Parcelles Cambérène secteur boobu noonu yëpp moo tax tey jii nii euh, ñu man ma topp sax bari am yaakaar si man am lu ñu gëm si man am lu ñu xam si man. waaye mbapat comme mbapat yi ñëpp ni mu demee rek di reñe mais man dama reñe naa daal nekkuma woon tamit koo xam ne gars yi damay ñëw rek ñu daan ma mais reñe naa. reñe ay reñe naa damay nekk mais reñe comme ci nan. reñe mooy daan te ba ñëpp xam ne kii dafa téye. Mhm. est-ce que daan ngay xam te ñu ngi doon kii. bi. bien sûr naa leen. comme ñan. non mais duma leen citer rek. mais moo jë xam nga instant bii tey boo nee daan na xamante ni yéen a bokk fi ngeen nekk soit ñoo xamante ni làmb raw na leen wala raw na mais dañuy kii rek dañuy ñëwaat ci li nga xamante ni. làmb boo xam ne amul image. buñ la nee foo ko daanee nga ne fii ñu naan image bi ko justifier fenn bu ko neexee moom mu bañ kon donc man daan naa leen ñoom xam nañ ko loolu lu ma weesu la a lan mooy sama priorité instant sama gëm-gëm sama bëgg-bëgg mooy arène bi moo wane si dara quoi. mais daal say mbapat tey da ngaa reñe ba ñëpp xam la ci mbapat. ah mais moom alhamdulilah quoi. moo jël lutte avec frappe nga dugg ci banane. ma dugg si 2011. def ñaata combat. ma def 18 combat laa am cinq défaites. mën ngaa ñëwaat ci li nga xam te ne moom sa palmarès wax nga ko am nga 18 combats 5 défaites ah kon 14 victoire nga am. non 18 combats 5 défaites 14 victoire non 13 victoire. 13 victoire. oui normalement. normalement oui. Modou Dia ñu ñëw si li nga xamante ni moom mooy tey kon ni ma ko waxee woon rek dañuy ñëw si li nga xam ne mooy sa premier combat sa premier combat yàkkan woon ak kan moo ko tëggoon ñaata lañ la fay. waaw ah, El Hadj Mor ñu ngi biram man sama papa ju baax jooju maa ngi koy nuyu moo ko tëggoon terrain église ñu daan ma bébé Modou Lo moo ma daan sama premier combat. waaw waaw bi sama mag daan waaw. <laughs> combat hmm. boobu nan la demee woon. non dara yëfu xale rek gëm maa xam man ñëw def yëfu xale ñu daanu mais loolu moo ma defal li tey parce que bari na ay champion yu fi tey seen ay premier combat dañ ko ñàkk quoi sport noonu la. ñaar que du woon quatre vingt mille yaakaar naa quatre ah, quatre vingt mille la ah, si liñ ciy làmb moom yaa ma gën a xam buñ la fayoon cent millions tamit yaa bu si gars yi jàppal du baax. nga bëreeg Bébé Morlo après kan nga ci tegaat mu daan la sa premier combat première gars yi liñ ñu bari nañ premier combat mbëri duñ ci génn ndax en général moom mooy li nga xam xamante ne moom mooy dañuy essayer rek yow nga échec ci sa deuxième combat yaakaar la woon. non sama deuxième combat nag ma dugg si tournoi arena tour bi quoi waaw yi naan kii xamul boppam wax mën nañu kaa daan barke Demba Ndiaye mu dugg ñëw dugg si li nga xam ne yaa ma gën a xam. ma dugg waaw fekk fa ñoo xam ne ñi ay 9 victoire lañ toog ñi ay 5 ñi ay nangam. yàlla ma bëri ak. ma bëri ak Dégol junior bu école de lutte ñaax Niang daan ak Omar Yacine daan ka bëri ak Kama junior daan ka Yékini deux moo ma daan dem final. boobu yaa ngi na fa nekkoon yéen champion. boobu ay góor a soog ñu ngi fa woon ay góor a soog ñu ngi fa woon boobu ta Yékini deux mu ngi fa woon Omar Yacine mu ngi fa woon Kama junior ay Babak ay mbëru séeréer lañu woon quoi ay ay bon ñu si bëri fàtte naa leen de wax dëgg yàlla. réussiroo ba léegi nga def demi final euh, ku def demi final moom da ngay dem xaariwaat leneen ba nga jógee ci arena tour bi après fan nga duggaat. waaw ah, ma jógee si arena bi nag yàlla suturaal ma ma tàkk def benn année cinq combats cinq victoire. waaw ma tàkk waaw. <laughs> def aussi. Ah. loolu ñëpp yëg cinq victoire sama premier combat caatu am ma laa bëreel après Jarade après Jetli. Jëtli moom pas Jëtli Géejawaay pas Jëtlu mag mi dëkk Pikine après euh, Paptine syndicat après ab su lay dop numéro 2. ñooñu ñëpp nga waaw si benn saison cinq combats cinq victoires ma jël meilleure révélation. temps yooyu ngay toj na nga ah, temps yooyu nu woon après ba nga jëlee. yàlla rek <laughs> suñu borom rek mu xañoon ma yële ñaw may may. amee no ah, waxuma la foofu dama lay wax rek ne la du kenn du jàmbaaru ken du benn sëriñ bu ko liggéey du kay du dara du rien suñu borom moo namoon lool si man def ko. léegi ba nga noonu kon ni nga wax cinq combats cinq victoires jël meilleure meilleure révélation après yow lan nga wax sa bopp daa lu may xaar wala euh, le travail continue. non alhamdulilah ba tey xelu xale bi rek des ma yaakaar ne maa man ñëpp ñu jox ma seex ngiraan xam nga mu nax ma daan ma ma bëre Pambaay daan ko. Euh, après daan Pam Mbaay ñëw Mame Balla de mbëre ma mu daan ma ma xam ne rek làmba du foo quoi si laa ñëw bëre ax euh, Malaw Seras aussi. ngay yéeg di wàcc. waaw taxaw ma quoi ma. nga ne waaw mu demee noonu ma xam ne rek làmba kenn du ko fowee quoi am na benn champion moom ma soon wax ne ma mën ngaa bëre. li ngay bëgg li ngay def bëgg nga ko ndax di nga entraîner durement mais boo ko gëmul bul sonal say mbokk quoi et ma toog analyser loolu ma xam ne kii li mu wax dëgg la yàlla dogal ma bëre ak Gamou Gueye daan ko bëre ak Kéwal daan ko war a bëre ak Thiat daan ko kàttan suñu borom. Cheikh moom ñu ne mag la suma ma juumul mu daan la Malaw Seras nga jël ko ñu ne Modja day bëgg yoon mu daan la ñaar yooyu noonu ñu gis différence ay booy nga daan ay mag daan la loolu lan moo waral loolu. waa xëy na expérience laa ko man a jàppe quoi expérience lañ ma euh, parce que jamono ñu ëpp ñu ma doole ànd naa ak sumay mbokk donc dañ ma nax daan ma ko man dama doon teg rayante bi ñoom ñuy teg naxante bi loolu la woon quoi. sa combat ak Malick Seras ñu bari ne woon mujj combat bi du combat quoi mujj jël Malick Seras Malick Seras daan ko combat boobu noonu préparation yi moo doyul wala da ko xeeboon. lu waraloon loolu. boole bu ma si am masuma ko am bi ma commencé bëri ba tey mais c'est xam si mais c'est que mbër boo toogee si ay défaite gars yaakaar ne moo ja war na ko a jël daan ka féel ka dem loolu la woon ñu dugal ma si orkani tamit xëy na jour boobu dafa dafa a am ndam sama kaw quoi mu am ndam sama kaw. mais gars yi doon wax temps yooyu mujj dafa négligé faraataraawul comme. loolu ñu koy wax mooy ñëwuñu stade yaa ma gën a xam mooy loolu suivre ñu ma gisuñu combat mais ñëpp xam nañ ne état boobu mosuma ko am. maalaw daan la mujj def nan dégg naa mujj bu ko maalaw daanee dafa gàddaayoon kenn gis ko <laughs> pour nga gis ko sax problème na <laughs> non du question de gàddaay sax question que question li tubaab naan il faut reculer pour mieux sauter loolu kese la ah bien sûr c'est normal parce que ku dul tukki doo xam fu dëkk xam nga nga topp teel a a ji di ñàkk. il fa nag nga reculer waat toogaat xoolaat sa bopp ànd ak say mbokk ànd ak sa ay xarit lool dama si remercier ñëpp ñu nga xamante ne jàppale nañ ma bu ma lim bëgguma lim ko amee suma ma limee damay juum mais ay nit jàppale nañ ma jël seen décision nekk si man waxuma nag loolu moo tax may daan ndax yàlla moo yor moo koy jox ku ko neex mais am na ay nit ñuy volonté wu nekk ak man di ma jàppale loolu la ko kon daan bi am na loo ci na lu ma moo ma ubbil lépp tey lu ma am si làmba tey jii moo ma ko may. nga jóge ci Malaw Seras gars yi ne promoteur kii bi sax mbër mi da ciy tooñ quoi gàmmu gay ah di moom mu jël. waaw gàmmu gay waaw. gars mujj day xaru parce que instant bi xewoon na xewatul kenn gisatu ko gàmmu gay sax il paraît que nee na dangeen koo piéger yow ak promoteur bi combat boobu noonu leen gën a si combat bi parce que dangeen koo piéger di ko préparer di ko fexeel. nee na nee na daanoo quoi mais yàgg promoteur bi presse moom moo tëggal loolu muy PABC avance looy wax ci loolu. non Gamou Gueye xam nga xam nga mbër moom mbër mu daanu waxoon naa la ko mbër mu daanu ut lay sampion la quoi bu ma ko daane war naa kaa mën a daan moom aussi bu ma daanoon war na ma mën a daan ko donc man loolu aw ma si aw ma si réponse quoi champion la nag quoi. mais ko yi nu mu meloon. ko rek ñëw fekk Kanté fii mu toog si géej gi mu oo ma xam nga waxtaan ak man ne ma champion nga maalaw fii la préparé ko mbaam donc dee demee ñëwal nga préparé ma ñëw gis fi njariñ suñu borom dimbali ma ma bëri ak Gamou Gueye daan ko ko ba nga jógee ci gàmmu gay fan nga jëm. ma ma am fi combat ma euh, ma ma année balance quoi ma année après jël combat ma kéwél quoi. kon balance naa du woon question d' année balance sax ndax amoon naa combat mais dafa dem ba si biir promoteur bi naan lii wax lii wax lii ba xam nga mu mujjee tombé yaa ma xam quoi mooy loolu. boobu man ak Ahmed Dem lañ ma waxoon. mais il paraît que sa combat ak Ahmed Dem combat boobu noonu gars yëpp duñ ci doon wax mais combat boobu li tax mënul taxaw. ça fait des années promoteurs yaa ngi koy bëgg di ma wax di ko wax mais xëy na rek moom bon masul yàqoo si man rek lépp moom la ko xëy na moom moo xoo moo gis leneen lu ko gënal rek loolu kese la quoi. nga bëre fi tamit combat bu am coow dugg ci bawol bawol yi ñu leen di nuyuwaale au passage kéwal mu nekk combat boo xam te ni ñu bari ñi xaaj bi yëpp ah dañoo tegoon ci kéwal parce que gis nañ ko macha allah état de forme bi xam nga ñu dar ko. bool bool yi war ko mujja sa combat ak Keweul mën nga si ñëwaat. sama combat ak Keweul c'est un c'est pour ma confirmer quoi. confirmer parce que manuma woon a jóge si euh, sama combat gàmmu Gamou Gueye ñëw amaat lu yomba il fallait ma jëlaatoon leneen confirme wan ne man dama am place si làmba dama am cër loolu moo taxoon ma jël ko mais il fallait mu demee woon noonu parce que moom dafa nekkoon si yoonam tegle quatre grands combats su ma juumul ou cinq daan ko donc il fallait cooli bari woon quoi mais man xam naa sama bopp. ku ma xamul it ma xam li may jar quoi. ñu gis ngeen waxante yow nga ne ko fan daa naan jeexee fa laa commencé mujj ñëw mel ni luñ koo tegal victoire bi sur le plan nii mu koy gis sa wax ji nga doon wax après nga ñëw wane loolu noonu da nga loo gëmoon la wala dañ laa wanoon victoire bi. non gëm-gëm la rek. gëm la parce que kenn du ko jiitu suñu borom dogal suñu borom kenn du ko wax mais gëm-gëm la lu ma gëmoon la quoi ba pare dama analyser sama bopp analyser ko moom dama dama xool samay capacité seetaan ay combat xam ne kii lii la capable ak fii la faible ma ñëw xañ ko loo xañ ko li mu man indi li ma man suñ borom defal ma si ndam quoi. bi ñu bari nañ danga koo piégé ndax li nga waxoon defoo ko ndax moo jëggaay yëpp nañ du xeex daan la may xeex yow mais bu arbitre sifflé day xool li nga xam te ne yoon bu yoon bu yomb quoi ñu bari loolu la ñuy wax moo jë day xool yoon bu yomb mais du xeex. tapet la day gëmm. en tout cas en tout cas combat boobu benn coup moo fa am te man maa ko dóor kon nag sante naa ko suñu borom bu baax. le reste nag lamb moom manu ñëpp mënuñu laa faral mais ñëpp it laa bañ a ñàkk a faral ku si nekk ak ni muy analyser te ku far mënu la ba léegi tamit ci combat boobu lay taxaw ndax gis nañ ne après sa combat yow ak Wouly 2 gaa yëpp yaakaaroon ne combat boobu day taxaw ñu jékki-jékki xam Modou gaa yi ne Modou Dia mooy daw. ne wuli de moom moo jë moo teggi moo teggi wuli de <laughs> dem jël caat ñu ne caat moo gën a yomb pourquoi yow wuli de bañ ko. man wuli de li ma la waxoon si moom jóguma si wuli bu fajoo ba wér bu ñëwee ma jël ko daan ko wuli de promoteur waxoon na suñu combat mais tamit jubóowu ñu si cachet dafa wax li mu man man ma wax li ma bëgg yàlla dogal suñu combat taxaw mais man. kéwal moo man wuli de foofu kon donc amul may xalaat si ay wuli de ma ne kéwal Kéwul meen moo mën wuli deux kon aw ma lu may xalaat si ay wuli deux. ñaar bokk bokk benn écurie nañ bokk ndayax baay Kéwul moo mën wuli deux kon aw ma may xalaat si ay wuli yee aw ma may xalaat si moom. làmba moo ñu warul woon a boole boolewuñu. warul woon woon boolewuñu. boolewuñu. Ah, bu fekkee mu ngi si lamba ji maa ngi si lamba ji waaw. mais mujj bu ñu waxee ni il faut mu faj mu wér ke wuli deux dara dalu ko nee na nga ñaanal ko jàmm nee na moom da moom ban feebar la feebar. booy man dama am lu ma doy sëkk taluma wul li ma la si doon wax wax naa la kasi ba pare maa ngi sëkk beneen gàmm. mais yow mu fa il faut mu faju ji ba wér mu faju ba pare soog a mën a bëree ngeen. bàyyil ma yàlla bu ma anee balance na am komba ak mbooleem ñun jeune espoir yi fi nekk yëpp amuñu ay combat bari nañ quoi. <laughs> amoon may débat wul li de. pour yéen ñuy suivre sur Wassare ta tey ñu dala ki nga xamante ni moom mooy Modja borom 5 défaites 13 victoires moom lañ seet fii si nga xamante ne moom mooy Saalu Kanté ci Wakaam muy préparé na combat bu rëy ci diggante moom ak caat sa combat ak Kéwél ngeen da nga doon confirmé sa combat ak caat looy def. sama combat mooy de toutes les façons ak lu mën a am moom si kattanu suñu borom ndam. non déggoo ma de combat ak Kéwél da nga ne confirmation. combat bi. dama am ñaari yoon ay test de passage yoo xam ne dama ko échec te si kattanu bur yàlla barke borom Ndiassane du ñett damay daan loolu amul sax ay explication dama ñàkk sama ñaari combat man ak Cheikh Ngiraan ma daanoon damay dem man ak Malaw Sera su ma daanoon damay dem ma amaat la chance sur Thiat <laughs> ak lu na ma xaar sax moom. mu mujj sa combat ak Thiat gis nañu yéen ñaar da ngay tëgg combat bi duñ te moo parce que combat bi ni mu taxawee demoon nañ avant muy taxaw. xam nga caat xëccu fii mais mujja dafa amoon gëm-gëm ni ren day bëre caat. si man sama combat man ak caat sax dafa ma jaaxal ko am na sama benn gayen Bab Sidi Diop <coughs> doomu Amadou Kati Diop maa ngi koy nuyu bu baax mu ngi Japon dafa doon toog toujours di ma wax na maan liir naa interview caat bi wala liir naa sa interview bi mais ñëpp sa combat ak caat la ñu wax même ba benn benn gayen Basir mu ngi fii euh, dafa doon wax sama sa combat ak ñëpp dañ ko doon wax mais. bon amoon na sama combat ak Wouly 2 euh, négociation yi moo gënoon a sori sama combat ak euh, euh, comment elle s'appelle Ahmed Deme négociation yi moo gënoon a sori mais sama combat ak caat moo taxaw kon donc mbiru suñu borom la quoi. ma bëgg. nga waaye yow caat ma bëgg a bëreex moom caat dama fi ma bëggee bëreex moom du tey yàgg na loolu yàgg na loolu bi ma daanee. li ma daanee Pambaay la woon après Modou Mbaye invité ma benn 2STV ñu waxtaan si ma ne ko caat ba gën a moom man du ma du ma wax du ma wax lii tey suba ma wax la man maa waxoon loolu. loolu kese la ah. pourquoi caat te barke Seydouna Mohamed am na ku ma waataloon na ma ren yaa caatay bëree. billahi allazi la ilaha illa waaw. moo sa benn bien sûr. kon wax na la kon wax na la combat bi kii daanaka dul. wax waa Maxu Baye Fall wax na ma damay tudd turam wax na ma carrément yaa caat yéenay bëree. vocal yi yëpp mu ngi sama téléphone yow ak caat yéenay bëree. dara seetal li ma la wax vocal yëpp mu ngi sama téléphone boobu du boobu boobu promoteur sax waxul sama combat ak caat yow ak caat yéenay bëree amul hésitation. de ba mu la wa <laughs> waaw bu yàgg moom sax war na xam loolu du ngaaga caat du ngaaga xam na ne bi ma bi ma nekkee si moom du tay <laughs> du ngaaga. bi mujj nga ne <laughs> mais mujjee yow déclaration bu garaaw nga joxe de. <laughs> du ma wax lu ma gëmul maxu Baye Fall wax na ma bu yàgg ne yaa caatay bëre ba wat si barke Serigne Saliou bi ma nekkee si moom di ko waajal du tey boobu promoteur waxul suñu combat. mais kon xanaa maxu Baye Fall maara nee na la combat bi kuy daal. maxu Baye Fall Mara nee na ma yaa caat yéenay bëre. mais <laughs> si détail boobu lañ toll instant bi boobu lañ toll instant bi eh maxu il faut nga jox ma numéro maxu ma dem seetu ko ah, mu wax ma combat bi kan mooy daan moo jël euh, ba léegi ñu gis ni caat wax dëgg yàlla xale la mais dafa def loo xamante ni yaa ngi ko doon wax sax nga ñàkk ki ñaan xaw ma nag yow da nga koy dóor xaw ma nu ñuy def na parce que koo koo bëreel dóor ko moo jaar yaa ngi naan caat pour ñu bëree moom ndax. moo njëkk a bëree moo nekk mbër boo xam te ne suñu génération moo njëkk a bëree ci grand combat ak Moodu Anta xam nga di ko lépp di ko di ko kii di ko iri. xam nga wax sa mbaaxu waaye du wàññi dara si sa mbaax caat ñun moo ñu njëkk a ñun génération espoir fi des yëpp moo ñu jiitu moo njëkk bëri Demba Diop si ay moromam no si suñ ñun suñu catégorie deux. bëri na ak euh, Zarko bëri na ak ay ténor yi nga xamante ne fii tey si ñun amuñu woon capacité bëri ak ñoom kon bëri ak caat tey jii. man teg naa palier bu rëy laa jàpp. ngay bëreeg caat ba léegi comme comme mooy actualité combat bi gis nañ ni yaa ngi ci préparation yi te li ci des bareetul ñu gis sa adversaire dafa jóge ci combat bari ki dem booy njaay moom ak armée moo ja après mu jël la est-ce que yaa ngi def analyse boobu noonu dafa jóge ci armée jël moo ja. man dama jóge ci kéwél jël caat <laughs> loolu kese danger jël armée yow nga jël kéwél ah, ma waaye armée de petite taille. armée nu booy man ay waxuma tudduma ay tudd ay cër armée petite taille la. waxuma ay wax yooyu caat lañ laa amal combat moom laay waxal. mais moo jë caat ngay waxal mais dañoo gis ni caat dafa jóge ci ki nga xam te moom mooy armée yow nga juge ci kéwél mais ñaari combat yi ban moo ci ëpp danger. léegi ma wax la pour mu gën a leer sa bopp kéwél moo man armée parce que bokkul ñaar ñooñ sax yéeg eh, nekkul ñoo ma fi indi quoi mais li ma lay wax mooy li wér te wóor man ak caat ñooy bëre te si kàttanu suñu borom ndam laa bëgg si kawam. ndam nga bëgg ci kawam ñu gis ni caat instant bi li wax rek nee na yow li ngay wax yëpp doo ko jëfee xam maa ngi la doon tooñ. ah moo jë gaay yi neñ dangaa ragal ku man waxuma ko sax ndax gars yi ñoom ñoo koy wax moo jë dafa ragal ku moo jë tapet la buy dóor day sëgg moo jë combat bi est-ce que pare nga réellement pour xeex ak caat wan gan ni gars yi carrément nekku ndax ñu bari dañ laa favoriser ci bëre mais ci xeex gars yi du ñu teg ci yow quoi 100 pour cent. bon en tout cas daal man li ma la mën a wax mu wér te wóor li ma waaj moom laay def duma ko wax rek <laughs> li ma waaj man Modja moom laay def. mais pare nga li ma waaj moom laay def moom li mu lii moom moom li mu waaj moom la engagé mais man li ma waaj gëm ko par force loolu laay def te maay diriger. voilà diriger comme nag. lu fa am maa ko fay def. maay ñëw maay tuus maay bëre maay daan. kattanu suñu borom yaw yow bàyyi ma <laughs> li ma gëm laa lay wax nga namaan ay njagas. mais Modou Diop xam nga li nga wax nii dafa dafa dafa yomb. may bëree may diriger Modja li la nit ñi di woowee que ni Modja dafa dañoo bëgg gis xeex bu saf-saf te Thiat dina pare pour xeex ak yow Modja est-ce que pare nga pour xeex ak Thiat. ma soo gis ku mu xeexal qu'on dit la vérité. man duma xeexkat kon ñun ñaar ay bërikat lañ ne ñëw ñu bëri ma jàpp ko daan ko mu gën a simple. mais Modja kon li ñuy wax ci tapet bi dëgg la. Oh, d'accord na. <laughs> d'accord na bërikat laa. naa. ba pare gars yi da damay yooru oh. <laughs> ah, loolu waxi nit yi rek boo xeexee tey ñëw ñu ne dafa war a bàyyi xeex bi boo bëree tey ñëw ñu ne dafa war a xeex gis nga man topp ma lii nit ñi di wax de xam nga la laay topp li ma sama ay coach su wax planning bi lii la dañ la yónnee demal defal ñu li ma dem def loolu mm, mais quand ay waxu ama ay waxu amateur ay waxu supporter ay waxu reporter non jamais non du waxu reporter parce que gars yi tamit ñoom ñoo gis ne moo jëbu day yooru day sëgg yow sa jëm bopp sama ay combat suivre nga ko ma soo gis ma dóor gëm kon donc loolu c'est des détails pour neexal sa émission. mais non mais da ngay yooru bien sûr yooru si bëri dafa am ay façon dafa am ñoo xam ne dañuy daje am ñoo xam ne dañuy song am ñoo xam ne dañuy yooru voilà man nag dama nekk technicien nekk tacticien man fu ma neex ma fël voilà. loolu kese sama combat man ak man ak man man ak kéwal yooru dama song. Ah, kon mën naa leneen ko lu dul. mais moom gars yi après lañ si nga xam ne yow bataille psychologique nga doon def ndax kéwél sax nee na gisu la da nga koo loolu moom déggoon. Oh, loolu mu ngi sama ginnaaw. moo tax kay yaa si loolu. waaw loolu mu ngi sama ginnaaw du cat. ay su ma amee gàllaaj yoo xam ne cat du ma gis Sénégal gis lu rëy. <laughs> voilà man yaakaaruma si loolu gis nga man yàlla laa gëm yonente bi taalibi Cheikh Abou Mouhamad Kunta laa sama ay waajur xam nañ ne li may liggéey pour ñoom laa loolu mooy sama priorité numéro un amul leneen. ci côté mystique bi ñu gis ni caat séeréer la day làq séeréer te séeréer moom wax dëgg yàlla moom macha allah dañuy taq dañuy kii ci côté mystique bi yow yaa ngi waajal lool. man may doomu séeréer man may doomu Morolan piir te séeréer booy xool cosaan bi jamono ji bu desul Morolan dëkk yi mu des bariwul man caat lu ma ëppale si gétt gi ba may xëpp ëppale si meew mi moo bu rattee naan ma ratta naan loolu du débat parce que sama yaay séeréer la sama yaay waa Morolan la mais cat day non xam nga dafa am lu nga xamante ne tey jii nii yow tukulóor nga te déggoo dara adduna moo tëddee noonu ñun fii lañ juddoo yoof lañ xam lu ñu am yoof la lu ñu ñàkk itam yoof la bu ñu amee ndam yoof moo am ndam bu ñàkkee ndam yoof moo ñàkk ndam kon amuñu beneen ay yaama gën a xam ko mm. beneen bi mooy wax nga ko yoof instant bi moom da ngeen a xew wax dëgg yàlla barki Dembo Ndiaye gis nañ caatu yoof bëre daan caatu ngéwél noonu ñu gis ni écurie bi Malick Niang nekk na fa amoo combat mën na ñoo wax ni waxuma nag yaay leader bi ndax Malick Niang mi ngi fa mais instant bi mën nañoo jàpp ni yow yaay leader bi parce que yow yaay instant bi yow yaay bëre di daan Malick Niang dafa saison dafa année blanche mais instant bi combat boobu nag yéen waa écurie Yoff nan ngeen koy waajee. non euh, diir damay damay féliciter d'abord euh, caatu ngéwël caatu yoof euh, boo yi fa bëree daan ay Cheikh doomu yoof ay bi xam nga di ñaanal gin combat suñ borom jox ko combat mu am si ndam. di ñaanal di ñaanal euh, euh, boo yi fa amul combat ay ligement ainsi de ñëpp suñ borom dafa leen combat jox leen ndam affaire de affaire de leader moom Malick Niang mooy leader écurie Yoff Malick Niang mooy tête de file écurie moo tëddee nii. Eumeu Sène ak gënoon a metti le foofu a keneen ak keneen ak keneen ak keneen di année balance yaa ma gën a xam mooy loolu dañ koy ñaanal mu am ay combat am si ay ndam. le reste de sa carrière di félicité Thiatou Yoff di ko wax ne que mu ngi si yoon bi sama combat nag ni ma koy waajale ak waayef ni ñu koy waajale c'est la même chose combat du sama combat combat Yoff la combat tey ji euh, autorité yoofoise yëpp la particulièrement monsieur le maire Abdoulaye Diouf ak suñu papa Abdou ak Mbaye Niang ak Ami Top ak Yoff bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp di leen wax ne combat bi seen combat la ak sama gaay yi ma nga waa kër meen Diouf yëpp dama leen di wax ne combat bi seen combat la ak suma ay mbokk tundu jandeer bi yëpp wa kër Ndiob wa kër Baba waa Tiwaawan di lancer appel si waa Njar Mburit Njar Tidiane bëgg naa ñu def délégation bu rëy ñëw ak waa bon kër Mbay Fall et de suite waa jàmm gën ñëpp ñu nga xamante ne xamante naa ñoom am naa ñoom coloré ñu jàpp ne combat seen combat la sama bëgg naa fa mbooloo lool ba euh, boo si jógee am si ndam loo nga xamante daan avec la moo fi jógee mu yóbbu ma fu sori. kon instant bi ko man combat bu ma am ba sax ba ker ba amee sangoo suuf combat Yoff la bu ma amee ndam balaa kenn di zibile waa Yoff ñoo war a njëkk bu ma ñakkee balaa kenn di méttilu waa Yoff ñoo war a njëkk a méttilu kon man sama sama ndam ndamu Yoff la sama defet defet Yoff la dama leen di wax ne leen Modou Dia doomu Yoff la te jël na boppam jox leen kon donc yéen loo leen si deful ak loo leen def yéen la. Modou Dia lan ngay wax caat da ngay xool caméra bi nga wax ñaari baat yoo te ni. Modou Dia instant bi il a il est décidé Modou Dia instant bi combat bi nu mu ko jar. du question de décision xam nga question de lan la lii mooy am jour ba caat da ngay dëggal sa bopp taxaw xaar ma ma ñëw jàppala daan la nga dëggal sa bopp fekk sama ma jàppala daan la ñaar yooyu la. bu xeexee ma daan ko bu bëree ma daan ko si kattanu bur yàlla loolu laa bëgg yàlla defal ma. ñaata minute. non ah, man dama sañ loolu man li ma bëgg laa wax yàlla na suñu borom jox mandam si kaw Bakary Sarr caat doomu Jonwaar. di oo Bouba Moundé di ko wax ne que combat bi li nga ma si waxoon yow yaa ma ko wax yaa ne ma combat bi combat promotion la da ngay daan caat kon loolu la. yee beneen bi si mooy beneen bi si mooy. <laughs> non sorxo sorxo ma. Basiru dégg nga li ma la nee naa la damay oo ñi nga xam ne ñoom ñoo jàppale di oo sama papa sama sëriñ sëriñ Boubacar Kunte mu ngi depuis Italie amuma fayam di oo. sama papa Cheikh Mohamed Rafaal di oo njabootu Kunta gi yëpp Seydi Hamza Mohamed Diadji sëriñ Boubacar Kunta Serigne Amou di oo Alaaji Sidi di woo seexal bekaay wulu seexal bekaay wulu seex bu Mouhamad Kunta li ko daggeen ndànk gu yett sanc bu na ndeer sama bàjjen yëpp waa ri 25 di leen wax ne leen combat bii daf ma jaral de plus que yi fi jàll sant naa leen gërëm naa leen di sant Bachir Penda Koyaate sama waay di sant Kanté amuma fayam Modou bala ngaa borom garba yu baax yi. mais Modou dafa am loo xam ne sax mooy actualité bi. actualité bi mooy. waa CNG ak arbitre sa sa gars yi. non actualité bi mooy coronavirus bi. non coronavirus dañuy ñaan yàlla <laughs> dañuy ñaan yàlla mu bañ a exagérer ba lamba yi mën a am programme yi ñuy wax yëpp mën a am arbitre yi nag dañuy ñaan rek ñun ay mbër lañ papa Aline Sarr moo ñu yilif ñun ñëpp na leen jéggal ndax gis nga nit boo jiitee ay nit da ngay am yërmande si ñoom loolu kese la nit ku dul juum amul bu ñu yàlla dul woon yërëm kon tukkal na àdduna bu yàgg. bi ñu def nag non xam nga nit ku ne dafay juum xam nga ñoom seen ay raison lañ defee grève yooyu manuma si xóot manuma si wax seen ay raison lañ defee grève waxtaan il fa la ñu toog waxtaan bu ñu toogul waxtaan solution du am bu nekk ne man li sam bu ku nekk utiliser bon puissance am rek amul njariñ quoi donc eh, nañ toog waxtaan suñu wàpp Alioune Sarr nag ñun ay mbër lañ am nañ droit ñaan ko mu jéggal leen mu bàyyi ndax nit ku ne yàlla sax dañ koy toon jéggalu ko mu jéggal kon moom na leen jéggal ñu toog waxtaan quoi parce que tamit euh, yàgg dafa am solo quoi te ñoom dañuy yàgg seen biir donc loolu kay sa la. loo gisee grand contre petit. grand contre petit bi grand contre bi kay neex na mais <laughs> saison bi moo neexul quoi amul dara mooy loolu dañu ñaan rek sponsors yi suñ papa Macky Sall papa Alioune Sarr ñu seddal affaire yi jàmm am sponsors yi ñëw gars yi bëri ndax Sénégal lamb rek moo fi am coolee fi ne rek mais lamb moo fi am football am na fi yi bëgg nañ ko di mais lamb li muy drainer fii Sénégal ak li muy euh, déranger fii Sénégal li muy yëngal beneen sport defu ko fi. mais nag dañuy ñaanal yàlla sport yëpp évoluer parce que ñun ay jeunes lañ footballeur ay jeunes lañ karatéka yi ainsi de suite ainsi de suite dañuy ñaanal yàlla ku si nekk nag xëcc boo gis tamit mooy loolu quoi mooy loolu ku nekk da ngay ñor di jamee sa côté ñun làmba ji la ñoom. kon ñuy wax làmb yàqu na wala yàqul yow lan nga si ñoom ñoo yàqu ñoo ñu di ko wax ñoo yàqu li yàlla dogal di ko diriger nga ne yàqu na ñeme yàllaa ngi noonu kon xanaa àdduna yàqu na ndax feebar baa ngi fiy dox eh, loolu ama di la remercier bu baax Jassiré Mathia Ndam di remercier waa Yeumbeul yëpp di leen ñaanal jàmm xaar leen ma ma ñëw yal na jàmm yàgg waa wasaare yéen a fi ne wasalaam alanaat. Kanté dégg dégg ko. waaye ajo Basiro ki ñu toogal ah, mu nekk Big Kanté nekk koo xam te duñ ko présenté kenn kon nuñ ko defee woon rek ñëwoon nañ fi ñëw seet si ki nga xam te ni moom mooy moo jël ñu waxtaan ak moom mu nekk koo ni moom moo koy préparé ci lépp gis nañu kii toog moom mooy préparé Balla Gaye ay ñoom Gris Bordeaux Ama Baldé ñoom ñëpp nee naa leen yéen ñi koy gis di ngeen xam yéen ñi koy gis kii mooy Big Kanté ah <laughs> nga ni <laughs> kii mooy Big Kanté Kanté maa ngi lay nuyu. waaw ok je vous remercie Wassare, Lambo. Ok, bonsoir à vous. Vraiment, c'est le Big Kanté et en chair et en os en face de vous là. Ok, je vous écoute. ngay ci combat bi. nga gis ko état physique am nan nga ko gisee. bon Modja sincèrement sama niveau bi moom pare na pare na pare na bu yàgg pare na parce que léegi on est en train de. def ay finition yi rek parce que sincèrement si je dois parler à son niveau moom euh, il m'a suivi na sama conseil yi et puis euh, mi ngi liggéey mi ngi respecté affaire yi bu baax en tout cas combat bi moom il est en train de me montrer vraiment que c'est quelqu'un qui a envie de faire beaucoup de choses dans l'arène qui veut aller vraiment loin quoi et moi je pense que nit bu bu lig bu liggéey liggéey liggéey liggéey dina mu dara moi sama sama logique mooy loolu quoi je dis si un garçon veut quelque chose amul euh, amul ñaari yoon benn yoon kese la liggéey ak respecté et bon bon noppee noo gën dal. Mm, voilà voilà bon Thiat maa ngi gis Thiat euh, gis na ko yaram bi dafa rafet dafa musclé bu baax mais léegi man dina ko dina jaar euh, Pa Modja dem jàpp ko pour xool est-ce que mus yi ci biir am na dara daal. voilà voilà non non waxuma amul dara. wax dafa rafet yaram bi dafa rafet voilà yaram bi moom macha allah je mais il faut que mu dem xool ci biir est-ce que am na dara quoi voilà voilà voilà j'espère que moom liggée na parce que combat liggéey la suñu kër fii liggéey liggéey liggéey liggéey bu bu bu dugul boîte vocale yàq appareil yi voilà. mais metti ndax am na mbër yo xam te dañuy daw. way fii moom sama identité mooy loolu amul tricherie. amul mbër bu mag amul mbër bu ndaw bu ñëw dina wocc comme on dit wocc <laughs> tant tant que du feebar ou bien tant que bu wocc sa yaram bi rodé est-ce que comprendre loolu mooy sama identité amul tricherie fii liggéey bu no fii moom mbér mbëri yëpp ceux qui sont passés ici ils savent qui est Kanté et puis plus Kanté prend de large Kanté il est grave. fii. Mm. ouh il est grave Kanté. kontaan naa ci yow. merci kontaan naa pour yow. kontaan naa pour sa niveau nouvelle chaîne bi. dama abonné taf taf taf abonné na quatre fois. <laughs> kan yow ah si c'est pas yow ma man du ma bougé. <laughs> kon bu baax. ah ok ok je suis content aussi. Merci. vraiment que les bons de nous gardent. qui nous éloigne aussi des maladies. Les gars, les lutteurs, les gens ils excusez-moi Mbéri, on dit les Mbéri sont salis, sont comme ci comme ça. Gagne, faites attention, lavez vos mains, soyez propres cette fois-ci. soyez propres, lavez vos bi, propriété. Là. Hein, ne gâtez pas notre nom. Hein. Ok? Ciao, big. Ok. nii lañ koy defee rek à chaque fois ah, te ñu ñëw jësi ki nga xamante ne moom mooy mujj bu yoof mu nekk xale boo xamante ni dafa marqué empreinte xale boo xamante ni tey macha allah ndax tey nee naa leen dafa àgg ci làmb tey ba war a bëre ki nga xamante ne moom mooy caat mais caat xaar ñu ñu ngi ñëw lii la ñu indi loon sur Wassare Lamb Wassare TV mais nag kon ni ma koy waxee à chaque fois rek di remercier nag bu baax a baax ba Basirou l'infatigable di bëggewaat képp koo xam te ne yaa ngi ñuy suivre sur wasaare lamb wasaare TV naan leen sant ak gërëm ñeel na leen yéen ñëpp ah kullu kum cat ba cat kon ni ma koy waxee rek yéen ñi si jàpp bu baax a baax ndax ñu jàpp si combat bi dafa bari mais nag li may wax rek aw ma seen fay yàlla laa leen di bàyyee la mais nag koo xamante ni tey moom dama koy remercier di ko remercier xam nga ba ba may sàngoo suuf muy démbalee maa ngi lay remercier bu baax a baax li ma lay wax rek lépp lu ma mën lépp loo xamante ne wax naa ko nit ñi dégg ko rek. yow la kon boog kontaan naa ci yow ak képp koo xamante ne rek yaa may bëggee yaa ngi may ñaanal mais suma famille dama leen di sant bu baax di leen gërëm. ma lim xam nañ xam naa naan leen xam nga rek kontaan naa ci yéen daal ndax loolu jàmm jàmm ko gën wasaare làmb wasaare TV Fatima kese.